mbokku internet yu 5 TV maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak ñun xale nag jàmm ci li gën a ci xibaar yi fetu Noël la koy dooree bu ren bi nag wuti torop ak yi nga xam ni moom moo weesu ndax mbasum covid 19 bi nga xam ni tombee na ko démb nag archevêque bu ndakaaru di monseigneur Benjamin Ndiaye wax na ak sénégalais yépp mu xam leen ni nag jamono yi ñoo ngi rek dund ci jafe-jafe ndax rek mbasum covid 19 gi ak askan wi lépp rek soppeeku koom-koom geek aada bi lépp rek la daal di nësaxal mu teg dund njàngat la la doole rek doomu aadama daal di toll ci noonu moom monseigneur Benjamin Ndiaye ñaanal na way tawat yi nga xam ni covid 19 bi moo leen tëral ba noppi nag mu ñaan rek ngir mu bañ ñoo topp ci 2021 bi ba tey mu ñaan yàlla rek bépp jafe-jafe wala tolof-tolof yàlla soril ko nit ñi rek ci Noël 2020 bi nga xam ni daa tombee rek jamono ju day warte métti lool ci noonu équipe bu Sénégal 5 ak bu 5 TV ñoo ngi ñaanal rek mbokk ke catholique yi waaye itam sénégalais yépp rek ñu feete Noël si jàmm ak feetu fin yi noonee la jàllee ci mbas mbasum Covid 19 bi docteur Mamadou Ndiaye di directeur de la prévention waaye nekk itam ki yor kàddu yi bi gàlloo wàllu ko wér gi yaram defal nañu xayma bésu tey bi comme ni mu koy defee rek saa su ne tey aljuma ñaar fukki fan juróom ci weeru décembre junni ak ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak la ñu jot a amal ñu am si téeméer ak juróom-benn ñeent doomu aadama yoo xam ni gis nañu si ñoom doomu jàngoro ji mu bokk si juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ñoo xam ne ay cas communautaire lañu di maanaam ñi nga xam ni ñoo ngi doomu jàngoro ji waaye kenn mënu laa wax rek fu ñu ko jëlee juróom-ñaar fukk ak benn ñoo xam ni ay contact suivi lañu mooy ñi nga xam ni dañoo jaxasoo ak way yi ba waa kër docteur rek doon leen topp am na itam eh, mu jaare rek ca aéroport international bu Blaise nga xam ni feer bi lottal na leen ba ñu rawale ca Sowétas ba tey moom docteur Mamadou Ndiaye lim na juróomi doomu aadama yoo xam ni faatu nañu si opp covid bi mbas mi nag bi mu duggee ci réew mi ak léegi limug ñi si faatu rek toll na ci ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom benn doomu aadama ñuy ñaan suñu borom jéggal leen te xaar leen aljana ba tey ñeent fukk ak ñetti ñi nga xam ni xeer bi tëraloon na leen wër nañu junni ak téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom ñaar eh, doomu aadama ñoo nekk ci loxol docteur dañu eh, leen di faj ba léegi xanaa ñu ñaanal leen rek suñu borom daal di leen di yëkkati si jàmm covid 19 boobu nag moo ngi wéy di faat ay doomu adama ndax ki nekkoon njiital opposition bu Mali di Soumaïla Cissé lañu ne rek génn na àdduna foofee ca Paris gannaaw bi ko mbasum covid 19 bi tëralee loolu sax moo taxoon rek ba ñu jàllale ko mu faju waaye nag foofee la yàlla ñëwee ak i dogalam xibaar bi nag waa RFI ñoo ko fësal gannaaw bi ko kàngam yi nga xam ni ñoo nekkee ci partem di URD dëggalee rédaction bu Sénégal 5 ak bu 5 TV ñoo ngi koy ñaanal moom su Soumaïla Cissé sunu borom daal di koy yërëm te xaare ko aljana ñu woyal ak coowal site d'information yi li ci Sénégal nag bari na fi lool ndax rek seen lim toll na si wala mu ëpp ñetti téeméer waaye nag yi si ëpp dëppoowuñu ak ni site a àddu ngir rek ñu tegaat ci yoon site d'information yooyu le euh, ba ñu dëppoo rek ak éthique ak déontologie kàddu yooyu nag Ibrahima Lissa euh, ndax rek xamle na ni yàgg na xalaat nii rek dañoo war a teg ci yoon wàllu presse en ligne bi lu ko mooy rek dina jural réew mi ay musiba ba tax rek muy sàkku ci kilifa yi ngir rek ñu amal ay daan te bañ a nekk yem rek ci ay waxu kese Matar Sall nekk directeur de cabinet bu njiital CNRA xamle na ni CNRA yoon may na ko rek ngir mu tëj site yi nga xam ni dëppawuñu ak li war rek ci wàllu ko tasuma xibaar xibaar te mooy éthique ak déontologie Babacar Diagne di njiital CNRA moom it xamle na ni li ëpp ci sénégalais yi xam nañu bu baax a baax euh, njàqare bi nga xam ne moo am ci site yi ba tax rek kilifa yi jiite site yooyu dañoo war a rek am autorisation bu jëwriñ bi gàlloo wàllu ko aada ak communication su boobaa ñi nga xam ne nangul nañu leen euh, dañu leen rek gunge euh, ci seen liggéey ñi nga xam ne nag ñu leen bu ñu jàddee yoon dinañu leen topp ba noppi nag xeex xeex leen rek ci ndimbalu waa ci noonu nag moom monsieur Diagne mu xamle ni dinañu liggéey cybercriminalité te liggéey bu am solo rek la ñu ci nar a amal njiital conseil économique social et environnemental mbooloo bu takku rek la àndal daal di dem foofee ca ca Ngajaga démb ci alxames bi moom Idrissa Seck ak ñi nga xam ni ñoom la àndaloon dañu faa dem rek ngir nemmeeku situation ba fa am gannaaw lakk-lakk rek ba fa amoon na ci benn teenu gaz ci noonu nag mu bokk ak askan wa seen tiitaange ak seen njàqare ba ñu fay dundee rek jamono ji ci moom Idrissa la ñuy desandi ndax rek ci alxames bi ñu génn àdduna rek ak sunu mbokku catholique yi ñeel rek fi nga xam ni euh, feetu Noël yi la li mu leen xamal rek mooy ci guddi Noël nga xam ni nak si la ñuy màggal juddi yonent yàlla Insa di guddi ñaan ak feetu ci mbégte ak moo ngi ñaanal rek mbokki chrétien yi euh, Noël bu neex a euh, ci gëm-gëm booloo ak partage ci noonu ba tey mu xam le ni rek moo ngi ànd ak doomu réew yi nga xam ni mbasum Covid 19 bi dalee na sonal di leen mastawu te di leen gën a ñaax ngir rek ñu dëppoo ko diglewu waa kër docteur jàll ci faatu ko belge bi di José Christian Diagne Thielmas moom nag la tukkee ci autopsie bi ñu amal ci néewam daa gën rek dugal jëkkëram ji di Alassane Sarr ndax médecin légiste ba nekkee rek ca hôpital Aristide Le Dantec bu Ndakaaru mu leen na ni rek soxna soosu traumatisme crânio-encéphalique thoracique bu ànd ak ay fracture yu baree bari moom moo ko daal di faat te bu ñu fàttalikoo jëkkëram ba ñu koy déglu daa xamle woon ni rek moom moo dóor soxnaam soosu ci bopp kett ba ca police nag defoon wane na ni coowal suuf moo leen jotale woon ñoom Abdoulaye Ba moo ko xamle ba muy jàkkaarloo ak waa taskatu xibaar yi ni kiy démb alxames ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre tey xamle na ni nit ñi nga xam ni ñoom la ñu jot a déglu ci coow li lépp ñoom ñëpp nag li ñu xamle rek mooy daam bi daa mas di ñaxtu doxalinu jëkkëram ndax rek nee na da ko doon laaj xaalis ci anam boo xam ni anam bu métti la ba tey rek gannaaw jëkkëram nga xam ni daa rek dëggal ni moom moo faat belge bi taya seen di wujjam moom te yoon daal dina koy teg loxo ndax nee nañu moo jàppale woon jëkkëram ba muy suul soxna si ba noppi nag xam ni foofee la jéeya bi amee ñu woyal ak acteurs culturels yi ñoom nag gannaaw seen sitin bi nga xam ni amoon nañu ko jox nañu leen rek lu toll si 2,5 milliards ci kopparu CFA ngir rek ñu jàppale leen ko waaye nag kilifa yi nanguluñ leen rek seen bëgg-bëgg bi ñu amoon mooy rek ñu daal di dooraat seenu ko liggéey ñu jàll ci soxu bébé moom nag wane na ni anniversaire de l'année la def ndax fës na lool ci réseaux sociaux yeeg tenue bi nga xam ni moom la sol muy robb boo xam ni nag ñu bari bàyyi nañu ko xel ndax rek nekk boo xam ni ñawkat yu mag yi rek ñoom ñoom ñoo koy ñaw xanaa nag ñu ñaanal ko rek moom Soxu Bébé yàlla guddal fanam te wéral ko ñu jàll ci Aïssa Balago tekk di doom ci Papa ba nekk itam rek ci Wally Seck moom naka gis nañu ko mu fësal ay photom ak Seydina Alioune Seck di magam ba tey ak yeneen i frère am ñu gis ko nag mu nekk en toute ak ay frère dañu jeexal ak faatu Mbaye nekk jabaru international sénégalais bi rek di Karamboj moom nag fësal na ay photom ci réseaux sociaux yi ñu gis ko nag mu mel ni moom rek soxna soosu daa gën a rafet te gën taaru ñu yem ak yéen mbokku internet yi ma jox leen dig daje ëllëg incha allah waaye laata boobu woyee leen di abonné ci 5TV te bu leen fàtte ba suñu cloche de notification bi ngeen di jot suñu vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëf et bonne fête